أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جروب تبارك الله من آه، ngi leen di زيارة di بالو ziyaara di leen baalu xaq te di di jéggale ci tardement wu leçon bi tabaarakallaahu euh, xawen xaw a jàpp rek nag a taxoon booba léegi mënu woon am temps wu jàllale ko waaw su ko defee ñu ñëw ak yéen ci suñu fiqhu tariqa ginnaaw bi ñu nuyu kilifa groupe bi yëpp waaw di leen sant di leen gërëm di wax ñaan yi ñuy ñaan yëpp mu jëm si ñun yàlla nañu ko yàlla boole yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit def ñu doon dëgg-dëgg taalibi sayidna cheikh radiallahu anhu waaw li ñuy wax ci tarixa bi yëpp te di ci wej weji yàlla na yàlla dimbale mu doon lu ñuy jëfe yàlla bu mu doon lu ñuy dégg rek mu jaar ci suñu nopp yi génn ca ya ca des yàlla na yàlla def leer gi ci suñu xol mu wàcc ba ci suñuy cëri juróom ñaar yëpp ñu man di ko jëfe ci barke rasulullah waaw mooy juróom ñaari cër yi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ko ko garantil tabarakallahu euh, mu garantil la aljanna yàlla nañ ko yàlla defal نيغي نيو اك يين سي سوني فقه طريقه من المسلمان الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه ا آه، بني يامون سي والو جولي من وون بولين ديف جولي لو نيو با ملنا سيخ كوي فور دوغوب ندخ وجاء في عوارف المعارف ان الكمال العصر عند العارف تاتي بذا العدد بالخشوع بعد تمكن من الركوع ولا يكن اخره ممتزجا بالرفع والتك بذا منتهجا وليس عند مالك تحديد في القول والفعل وذا سديد góor gi mu ne wajja dikk na fi awaarifil maarifi ci téere bu ni wax awaarifil maarifi nee na innal kamaala naka matuk sàbbaal yi ngay sàbbaal booru koo xee ak boo su jootee ci julli li gën a mat al ashru mooy fukki yoon yooy wax subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi ca rokkon ba koy wax diis fois su fekkente ne ca sujjóot ba moom it li gën a mat mooy nga def ko diis fois waaw bu nag kon boo déggee waram xam-xam waaw ñetti yoon nga war a indi waaw booy jiite da ngaa war a gàttal ndax am na ko fa ne dafa am ajo borom doom nangam seen maam Cheikh Al Hadji Malick nee na ci aj téere bu ñuy wax awaarifil ma awaarifil maarifi nee na li gëna mat ci sàbbaal ci rukkoo ak sujjoot al asru mooy fukk inda al aarifi fas aarifiina billahi ya nga xam ne ñoom ñoo mën a julli mhm. waaw kay taati na nga indi bisal adadi ci bile lim muy fukk yooyu bil xusuuci mu ànd ak toroxlu nag baxda tamakkuni ginnaaw bi nga xamee ne dal nga eh, sax nga mina rukkoo ci rukkoo ba Maodo mu ne na fekk ne yow jàpp nga sa bëti wóom ba yëg ne jàpp nga sa bëti wóom booy wax subxaana ya nag fukk ya bum mu gaaw ma nga cee toroxlu te mooy na nga naan subxaana rabbiyal ala wa bihamdihi ca sujjóot ga subxaana rabbiyal ala wa bihamdihi ca sujjóot ga waaye subxaana rabbiyal azimi wa bihamdihi ca sa ca sa rukkoo ba waaw kay ca rukkoo moom moom boobu bi ma njëkk wax su joota ko moom mooy na teey na dal nga ànd ak toroxlu tey bàyyi xel li ngay wax lu mi firi boo xamul firi mi nga déglu baat yi gis nga góor gi mu ne wala yakun bu mu nekk nag axiruhu mujjantalu sàbbaal ba moom tasi jaa ngay looy jaxaseeg bi rafa ci sigg bi maanaa mujjantalu sàbbaal ba matut ngay siggi bu ko def sàbbaalal ci sa bas bés fukk mat mbala ci sa sujjóot ba fukk yëpp mat booy siggi nag foofee na ngay indaale sami allahu liman xamida nga ànd ak moom fekk siggi nga ba taxaw ba taxawee foofu nag ñu ne nga wax xamdan kasiran tayiban mubarakan fiihi gis nga kon diggante rokkon bi ak sujjóot bi sax dafa am luñ fay def moo tax faw nga siggi ba taxaw ba yëg ne taxaw nga wax loolu doora a rot pour sujjóoti waaye siggi mu gaaw rek nga dellu sujjóoti kooku julli baxul waaw wal takku na nga nekk nag yow taalibe cheikh bi muntahija ngay ngiiroo ak di roy ak di jëf ak di pratiquer biza ci sama wax ji ma la wax maw mu ne boy julli sabbal ya nay mat fukk boo rokooee ya na mat fukk bo sujjootee na mat fukk te fukk yep nak na nga len wax bam jeex nga door di sigi ndax walay sa nekul inda malikin fas ngiiru imam malik taxdiidu dayo fil qawli ci wax wal fi'li ak jëf waza lii sadiidu mooy njub xam nga dañu wax ne ca sàbbaal ba ci ngiru Malik na man ñett am ñoo xam ne dañoo yaakaar ne bi maanaa na yam ñett waaye déedéet dañu ne la lu mu néew néew néew ñetti sàbbaal yi naam waaye li gën a bari nag moom luñ ko lim te noo fa gën a yàggee mu gënal yàlla waaw diggante rokko ak sujjóot parce que bu ñuy jaawale taxawaay yi la sallallahu alayhi wa sallam wax ne jëmmi taxaw ba bu mu yàgg par exemple imam Mohamed Diouf mi taxaw rek kabar mokal alquran rek ak jaay baat nit ñi baat bu neex rek tax mu jël baqara hmm? rek te arrêté xam nga benn xisib bu ko naree dóor ci rakka bi day gudd waaye mën na jël lu mel ne nisif wala sumun wala rubon wala mu jël sax saaru lam yakuni bam jeex wala wal fajri wala amayata yooyu manes na ko taxaw waaye jël saar yu gudd ya nag mbaa xisi bëb lëm ci benn rakka kooku la yenent bi bañ waaye jëmmi rokkon ak sujjóot moom imaam bu lay jiite mu gaaw wàcc ko fi te dana ñëw Cheikh Al Hadj ci kanam mu wax ko wàcc ko fi de bu mu la jiiteeti ndax laa yakunu laa bi wujudiha yakunu alhammu bal bi iqaamati adaka zammu laa yakunu du nekk alhammu yittewoo bi wujudiha ci amuk sàbbaal gi bi maanaa jëmmi sàbbaal ya du moom moo ñu yitteel ca rokkon ba ak sujjóot ba bal li fi nekk kay li ñu yitteel mooy bil iqaamati noo ca sax ga mooy noo fa gën a yàggee ca rokkon ba ak sujjóot ya te balaa bunt bee jeex da ngeen gis mu wane fi ko yonent bi wax waaw mooy juróomi abyaat yu mujj yi da ngeen ko ca gis xaw ma ñeent yu mujj yi ci balaa faslu bii di jeex mu ne kon lii suñu yitte mooy boo rokkoowee nga yàgg fa même boo rokkoo woon te waxuloo dara xam nga yakul julli waye li gën nak moy nga indi sabbal ndax sabbal ci rokkoo ak su jóot kooku la te ngeenel yakul julli farata mooy yak julli wala sunnatu mu akkat boo xam day waral su jootu xabla mbaa baada waaw waye euh, sabbal yi mom dafa bok ci ngeenelu julli kon jëmmi ja yu bi ak su bi koku la ci Cheikh Alxaaji Malik wax ne soxla addaaka yal na jéggal la azam ngaññi waaw xam nga léeg-léeg da ngay dégg saas bu naan boo taxawee di julli na xool ci sa catu baaraami ci suuf déedéet góor gi mu ne loolu njuumte la wala bu jaawis bum jéggi mawdi as sujuudi bërëb bi ngay sujuud ay naaka sa ñaari bët yi waaw fa ngay teg sa jëba di sujuut sa ñaari bët yi dee ko xool foofa waaw waaye du sa cati baaraamu tànk yi kon da sëgg ba sonn ndax léegi nga toqi ci sëgg ji dégg nga bu ko defee it même booru kooxee sa bët yi nay xool fi jëbi war a tege waaye sa bët yi bu xool tànk yi tànk yi moom siqoog moom dara waaw bërëbu sujjóot bi wala tujaawis bu mu jéggi mawdi as sujjóodi bërëb bi nga war a sujjóot ay naak sa ñaari bët soo ko defee tur di def na la gërëm xaaliqul wujjuudi yàlla mi bind mbindeef yi waaw xam naa ñu daanalee fi deng nga mu ne sa ñaari bët yi boo koy xool ci suuf ngay xool te si suuf nag bu mu doon sa catu tànk yi na doon fa nga war a teg bopp bi di su jëba di su jóot wal ni na lamin mu di tarjumaan muy ku ñuy e, di interprète lañ koy xawma doon ndaw bil xal bi ci xol kay yubaacida shaytaana ngir na la sori kay yubaacida nir ngir na la sori shaytaana shaytaani bi maanaa li ngay wax ci sa lamin dee ko xalaat sa xol lu muy firi nga di ko teewlu boo ko defee rek seytaane dana la noonu tuddati ndax waxoon na la ca lax dore ba ne bul bàyyi seytaane yalxabu bil xalbi ka muy fooye sa xol wa yasqalaka mu lay xañ ak di la soxla an lazati anwaari salaat ci bànneexu leeru julli bu ko def waaw kon nag dafa waxoon jullit buy julli bu yeggee ci niveau muumin nga xam ne génn na ci cadre l'islam léegi mu ca al muminu bi maanaam maqaama imaanu billahi xaqiqatan ja te loolu aarifina billaahi ñoo ko man eh, kookee nag dafay teewlu nag bi qalbihi ci xolam la waxoon jalaalullaahi wa azamatihi waa wa haybatihi laa tasriqu bu leen sàcc doonte sàcc benn baaxu ci gawr gi nag mu ne bu leen sàcc asalaata julli waaw ndax ku mën a tas yaakaar la moom sàcc ñu ko yàlla na too yàlla na leen ci yàlla génne ndeysaan yàlla buñ ca dee yàlla buñ ca màggat la yàlla fóot seeni xol ak suñuy xol ñun ñëpp aswa sariqa nag bi gën a yées gën a bon ci sàcc yi nag sariqatu salaati mooy kiy sàcc bay sàcc ci julli te mooy waajoo xam ne rokon ya daa bar sujjóot ga bar njàng ma bar sàbbaal ya bar sëlmal ga sax bar kooku góor gi nee na julli googu baaxut sàcc la mu ne bu leen ko def waaw bu leen ko def ah, bi sat bon na sariqa sàcc bu mel ne sàcc katu julli waqad yusibu bëri na bu bejjaawee mooy ku julli ba bejjaaw aaridal insaani gaar-gaaru doomu aadama bi maanaam ŋaamu doomu aadama nit danay julli ba ŋaam yi bejjaaw mooy lex yi fii sikkin yi sax noonu ba mu bejjaaw ba weex fekk maa akmala mustamatal asalaata julli li rahmaani ñeel yàlla rasul naa Umar ibn al-Xattaab la góor gi da ko way yaakaar naa boo demee ca tiira boobu tabarakallahu euh, siira boobu euh, maa ngi ko ca doon gis ترويه تروتي ربي سبحان الله من الشيطان الرجيم man ca doon ñëw waaw kay téere bi tur bee may rëcc de eh, góor gi da ko way noonu nag mu ne bari na boo gisee nit mu jullee julli ba bee jaaw fekk mësut def benn julli ba yàlla nangu waaw moo tax la benn waykatu wala fal doon wax ne taqoo julli ba pare sax si njëb njëb la ga sellul te waaw ndax comme inna salaata tanha anil fahshaa'i wal kar ba pare nga julli te dara te dara soppeekuwul ci yow firnde leen sa dara wérul yal na yàlla defal jégg ak topp yal na yàlla jéggal ndax julli dafay fóot xol waaw daf koy raxas waaw fortifie la cœur éclaire le visage noonu leen koy waxe inspire la bonheur mu waaw julli nag bu deful bu defarul cœur bi da ngay nekk di soxot ak iñaan di def nit lu bon ak di siis ak di yéene nit ñi lu baaxul ak ko mën a jekkali jekkali yooyu yëpp ñàkk julli gu nangula yàlla nañ ci yàlla musul su ko defee yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp di ci kàddu ñu xam mata dégg si doon wax la li ci ñàkk leer ci waaji la lu ci jub ci mbaaxu yàlla la ak yërmandeem yàlla yàlla defal dégg ak topp te may nu fekkee beneen ak jàmm ànd ak wér ak tal yéen ñëpp ngeen am jàmm bu ñu am jàmm yàlla nañu jàmm salaamaaleykum wa